Euh, ca kulliya bi nekk pikin tey ñu war a amal final bi incha allahu rabbi euh, am nag yu ci xaw a soppeeku tuuti yoo xam ni faw ñu leeral ko pour euh, lajnatu taxkim bi ak ñenn ñi nga xamante ne bii ñoo fi nekk bi ci njëkk mooy am na ñaari xale yoo xamante ni bii dañoo bokkoon ci final bi waaye dañoo mujj génn benn bi dafa dafa bokkoon te warul woon bokk ki ci des dafa def ba pare jëloon na moo jëloon pee sax ci jigéen ñi waaye dafa ñibbi euh, looloo waral ñu yéegal premier bi deuxième bi ñu yéegal ko mu nekk premier léegi troisième bi mooy ñëw ci jigéen ñi bu dee ci wàllu góor ñi aussi tamit noonu la demee woon moo jëloon deuxième waaye bi ñu euh, waxtaanee ba xam ni warul woon a bokk bi ñu ko génnee troisième bi moo yéeg loolu moo waral changement bi am euh, sunu mbokkit euh, Mansour Waaxo moom it dafa am ders bu bu muy joxe tey boo xamante ni bi ragal na ni bu ñëwoon fii bu fi waree jóge pour dellu dina xaw a tardé boobu te tey mooy euh, premier leçon bi premier dars bi mu war a joxe te waru ko woon tardé looloo war a ñëwul waaye oustaz Makhtar mi ngi fi mu wuutu ko ci palaasam incha allahu rabbi loolu du ci am kon bu ko defee juróomi xale rek la xam naa ni du yàgg incha allah ku ñuy wax Baye Moudou Sarr madrasa Moaz ibn Jabal bu Serigne Mor Sarr Aboubacar Dia madrasa Omar bin Abdul Aziz bu sunu mbokk Alhaj Jibi Jibril Top ku Ousmane Ñing bu Daarul Arqam Canaba Seck bu Oustaz Mouhamad Ali Ngay Abou Taha ak Ndey Pendaloo bu Hafsatu Umul Muminin bu Serigne Mor Sarr ak Siré Thior bu mu assasa Daarul Arqam bu sunu mbokk Aboubacar oustaz Aboubacar Faye kon bu ko defee bu fekkee ñoom ñëpp teew nañu incha allahu rabbi eh, ñu bàyyi lajnatu taxkim bi ñoom it ñu commencé seen liggéey incha allah rabbi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñu teew ñëpp ci bi xëy na bëriwul mbooloo mi bëriwul waaye jotaay bu am qualité la jotaay bu ñu tere alxuraan moom ñu yàlla tànn doo nga fay teew. ku yàlla tànn tey doo fi teew tànn la par toujours ne dafa am ak tànn la ci benn bis bisu yow bisu tey bi moom suñu borom moo tànn ñii fi teewagul xëy na am na ñeneen ñuy ñëw waaye ñu moom mu leen tànn ñu teew fi bu ko defee dañuy tàmbali liggéey bi ni ko Cheikh Abdoul Aziz Thiam waxe xam na mooy coordonnateur musaabaqa bi ñu woo Baye Muudu Saar euh, madrasu Muaad ibn Jabal riwaayatu Xafsin an Aasim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 واحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعذكم به إن الله سميع بصير بصيرا يا فردوه إلى الله والرسول إن كنتم إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ما تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح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 كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أن الأرض يرثها من عبادي الصالحين أن الأرض يرثها في عبادي الصالحين وأن الأرض يرثها عبادي الصالحون eh, mbokk yëpp ànd xamandoo ni musaabaqa bi concours bi eh, dañ koy def rek ngir laytaayale ko sunu jotaay bi nga xamante dañ koy am ci koor gi grand théâtre ni ngeen ko xamee mu tàmbale woon akepes ñu dem ba xajatuñ fa yóbbu ko eh, sises saal bu ndaw ba xajatuñ fa ñu yóbbu ko mag ba fi ne ni ñu koy def grand théâtre ren moo nar a nekk ñetteelu yoon foofa waaye nekk fukkeelu yoon ci bi jotaay bi tàmbaleeg léegi di conférence boobu Serigne Hadi Touré di def yàlla dogal euh, final bi ñu def fii foofu lañ ko daan defee at yi yëpp waaye ñu gën a bëgg am temps waaye tamit bëgg gone yi bu ñuy jàng foofa gën a nekk ci à l'aise ndax gone gi toog di jàng te kenn nekkul ci musabaqa ak ki nekk ci musabaqa xaw naa wuute tuuti te bëgg nañ ñu gën a nekk à l'aise looloo tax ñu génneel leen ko ci conférence bi ndax ñu gën a nekk à l'aise bu ñuy jàng ci bis bi waaye tamit incha allah gën a maanaam ñu gën a am temps foofu bu ko defee génne guñ fa génn musaabaqa bi nag firiwul ni gone yi amuñu ci cër aha kay cër bañ ci amoon lañ ci am ba léegi bu ñu demee incha allah am na faqara buñ leen jagleel boo xam ne ñoom juróom lañ koy jox kenn ku nekk yaay tànn fa la neex wala sëb sëriñ daal tànnal la ko boo ñëwee nga jàng bégal mbooloo mi lépp lu ñu daan defal gone yi dem final yi daan daan nañ ko defal incha allah ñoom juróom ñii mbooloo mi dina leen solal dina leen solal góor ñeeg jigéen ñi sol goo xamante ni ay dàll ki mbaxana sax da ciy ànd wala ay kaala incha allah bu ñu demee ba foofa tamit fi mu ne nii li fi juddoo tey man ak maxtaar ak ñeneen a ci yem daanaka lañ na taxkim wala ñële di ko kii ñoo koy xam ñoo koy denc ba booba incha allah foofa la ñuy joxe résultat yi bu ñu ba àgg ca képp koo xam ni yàlla dogal na moo jiitu ci kanam pay bi dinañ ko jox benn million un million deuxième bi daa ñu ko jox sept cent cinquante mille

di sant bu baax ñu teew tey ñaan bu bis ba yàlla na fekk ñu teel a ñëw bu mën a dugg ndax euh, bii passé huit heures fekk na salle ba fees loolu daal mooy kàddu yi nga xamante woon ne nañ dañ ko dañ ko joxe kon rendez-vous incha allah le 12 mai euh, grand théâtre ci confrance bu mag boobu jëmee al quran di amal foofu sëñ Haadi Touré di ko def ren ñu jël tomb alquranu xayaatuna ñu ngi fay jox rendez-vous ñëpp ak Cheikh Haadi waaye lu jiitu Cheikh Haadi ñu ngi fay jox yëpp ak suñu donga yii ñu laytaayal sëñ Haadi bégal jotaay bi ci al alquran jàng fa alquran conférence bi doog a kii bu conférence bi daanee nag ñu joxe résultat yi foofa joxe neexal yi foofa incha allah seen bokk woon Abou Taha Mouhamed ali Gueye responsable communication et dawa ci association bi organisé lii salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh